liggéey Sénégal war na ci boole famille moo tax gouvernement bii di ñëw war nañu fexe ba xale yi doon génn wàllu gouvernement bi ñoom jigéen ñi ndax ñoom ñoo mën a jël en charge préoccupation wu xale yi am na luñ ci xam mais buñ ko àndee xale yi mën ko jubanti ونفي خلل السنغال كم يوم ورط الخلاص جل في أي قال بدم بدم فقد يؤمن بجيل يؤمن بجيل كفرنا من الطلاب طلاب من الطلاب plan la boo xam ne dafa sukkandiku ci plan Sénégal la nga xam ne tontu ko ci kanam mooy lan la ñuy def fii ak deux mille vingt neuf fii ak deux mille vingt neuf mooy ñeenti at yi ñuy def ba tey jii waxaguñ li ñuy def nit ñi sonn nañu nit ñi dañoo war a dimbali war nañu wàññi lépp te ba tey jii déggaguma loo xamante ni daal la ko li ma gis ñu wax daal mooy deux mille cinquante deux mille cinquante mooy génération bi mooy ki am tey vingt cinq ans deux mille cinquante deux cent cinquante ans ku am trente ans 2050, je vous rappelle, le retraité. te 2050 baax na mais des lu bari yow mii xam nga dañoo xaar ba 2035. comme li ma ko leen yàlla defal déwén waaye loolu waxaguñ ko defaguñ ko loolu moo tax coalition Gàmm ak Yewwi du sol Sénégal ànd. di woote jàmm ndax bu jàmm amul waaye jàmm amul njëriñ pour ñu mën a xayma moo tax ma ne jàmm teg ci njëriñ jàmm bi mooy dina war a jubóo jàmm bi mooy ku nekk ci biir war nga respecté sa morom xew-xew wala baat yi ñuy dégg ci réew mi ñu ngi koy ñaawlu ñu ngi koy ñaawlu rafetlu yoo xam ne dañu mënuñoo tàggoo conjonction une élection wala bëgg fal warul tax ñuy reyante di yàq alal nit ñi di saagante di développé ay ñaaw na ñaaw ñaaw na loolu la ñu ñun ñëpp ñu ànd bu ñuy xeex ñu xeex xiif bu ñuy xeex ñu xeex ñàkk bu ñuy xeex ñu xeex ñàkk man ci loolu laay liggéey dama bëgg ñu ànd xeex pour que koom-koomu réew mi yokku bu koom-koomu réew mi yokkoo bu ku nekk gisee sa bopp ci réew mi jàmm lay ñaan looloo tax foofu lay tax jeexale jaraaf ñu doon lay dénk marché di la doon lay dénk ñii nga xam ni ñu ngi ci produit bi tax ma tànn daw suma maire ñun dañoo am ay aada xam ne dañu ko war war ko dëgëral ndax suñu aada dañoo jigi fekk yokkul waruñu ko wàññi réew mi la war a doxal ku nekk dañ laa war a nangu li nga dox sa mbir maire bi dañoo jox mbiram gouvernement bi jox mbiram moo xam ay commerçant la ku nekk jox sa loolu moom moo nga aroon kon la koy dolli dégg baax may jeexale ci les femmes transformatrices transformation boo ko déggee mooy lii wax ci wàllu koom-koom lii créer valeur ajoutée yéen da ngeen bokk ci ñi xam ne ñoom ñooy jëmale réew mi kanam kon jàppale leen utal leen financement bu neexal leen par ko defalee xam leen ni jëmale réew mi kanam en matière d'emploi nan la ñu war a def ba créer un million d'emplois ci ñeenti at yii di ñëw. dama la xool mënuñu ko créer ci cinq ans malheureusement malheureusement benn at bi ñàkk na. trois mois yu njëkk yi ñu doon jëkkandoo élection présidentielle ñu jógee ci di xuloo di ŋaayoo yokkuñu dara. jóge ci loolu ñu ngi ci campagne électorale législative yéen xam ngeen ni kenn liggéey ko. kenn kenn dara tam. ci la ñuy nekk ba le 17 novembre. et je pense que le di ngeen woon Sénégalais yëpp te da ngeen ne retour woon di ngeen defoon et que léegi da ngeen bëgg a demee ci dëkk. bu ngeen ko defee man bokk naa ci ñuy proposé. ñu ngi wotal gouvernement bi budget bu mu gën a gaaw du rek ndax yërëm réew mi la liggéey bi ñu wax banque bi fa xam naa ni avril bi loolu mooy professeur yi xam ne bëggoon naa ko def ma leen di sant